ñu ba mu waxee boo tudd jumaa ji sëñ Fallou ñam kam kam sësal dana ko jël na ko de kon moo ko fal Cheikh Abdoul Ahad 1988 ba mu waxee la mu wax ci abdu Diouf wax ji jaaxal ñëpp daa wax Cheikh Modou Badara Diop ne ko sama wax ji de jaaxal nañu bari daana ko xam nga ngeen wax ji lu ko daana ko bu li ma wax ne bala ko nit ñi xamoo ñëpp ñëpp maase ci bañ ko def daanaka sama kàddu gii de boo ko peese woon ak kàddu bindee fi ci balaas réngi ji ñëpp koy diggandoo dajale ak njabootam wax leen ne leen coow li di dafa bari lool boo élection yaa ngi sës xam daan leen xam nga loo indi coow la ñu ne ko déedéet mu ne li ma ne Abdou Diouf dana toog ñooy du fi toog mu ne waaye buñ xamoon la ma xam ne kenn du ko nattable ndax xutbu samaan ak góor suñ borom dana ko fal ñeent fukk guddi wàcce ko ci asamaan su mujj si kon koo xam ne sax xam-xam ëggut foofa wala sax xam àgg ca da nga xam lu nit ñi xamut danaa ci nett loo xam ne ñoom ña ñu ngay dund sëriñ Abu Mbàkke suñu mbuur boo xam mooy xalifu suñu mbuur boo xam te jër baaru suñu Buxaari ak suñu xalifu suñu fàllu dañoo ñëw ji siyaare si suñu Buxaari ba suñu bi daal waxee wax ja ñuy waxtaan seen waxtaan muuri ci biir oto bi bañ accès te seen teg seen Buxaari di génne ci kër di julli ji nañ leen ko laaj ba seen Buxaari génnee mel na ko leen di tontu nee na waxe seen blaat ji de ñu bari danañ ci wax ba yàqoo ci waaye buñ xamoon la tax ñu wax ko de kenn du ko nattable kon ñoom foofu lañ nekk sëriñ Saliou Mbacké président Abdoulaye Wade ba mu koy fal ñépp xam na ne da ko ñaar ba na ko jugal nga wuti mi ñaareelu at ma gis ngeen dem ci jëfandikoo li ma li yéene Sëñ laa ko ñaan kon moom daa waxoon ne nag sama kilifa yi dañoo amoon ndigal wax man nag ndigal lu ñaan la am waaye day jëfandikoo mu la mu bëgg mu am Cheikh mo Cheikh Sidi Mokhtar xam ngeen 2012 kàddu yam yi àdduna sépp ko xam leeroon na at mi weesu Cheikh mun Mountakha moo ko wax ci làmmiñ ñoom ñëpp dégg te man ba mu koy wax maa ko njëkk dégg ne ko demaat ca borobu Sëñ Tuubaa boo demee lañ fa la la loo bëgg nga fas ko fa Sëñ Tuubaa daal loo ko defal kon nag lu ma ci xam ci loo xam ne seere la ndax loo ci xam ne kat doon la lu jaaduwut ñu jëme ko ci taalibe wala ci dëkk bi boobaa sëriñ bi nam ko war a bañe ne la koy bañe kon loolu na ko ñëpp xam Cheikh Mouhamadou Mountakha weesu na foo xam ne dana wax lu neex nit lépp lu muy wax ngir yàlla jëm siñ Tuubaa tax ak taalibe yi te bu dee ñun niti àdduna lañ dañoo manqué dama tade lu ne mën nañoo dal waaye moom mi fi nekkal Sëriñ Tuubaa lépp lu mu xalaat weesu na lépp ndax li àdduna jariñ weesu na ko li nit àdduna mën a mën a li nit li ñu soxlaa nitu àdduna Cheikh Mountakha weesu na ko moo tax ku baax ki ci mujj gi biñ ko waxee ne ko nga doxale sa digg tubaab bi ay nit sëñ bi dane leen sama digg ñoom de kenn doyuma ci ndax ku dul man rek mën nañ la xupp wala ñu xëpp la man nag mënul suma xëpp mënu suma xëpp loolu nag def na def na ko ci ki ko fi nekkal waaye nag ci moom képp la yam nag moom mi fi nekkal sëñ Tuubaa mënu koo xupp kenn mënu koo xëpp kon nag ñu ngi ñaan ñun ñëpp nag yàlla ñu tàbbal ci biiram yóbbaale ñu ci alfulkul masoon gi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa def te dugal ci taalib yëpp te tàbbal ci tàbbal ñu ci adda xaltu nafsi wa jabi wa jamii ahli fi jëy bi afdali wara bi fadli wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa